waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Cambérène yëpp di nuyu monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu penc ak ñaar yëpp fépp fu lebu nekk rek maa ngi lay nuyu di la jox loxo tey nag ñu ànd ak sunu rak bébé Bismi vraiment ànd ak moom préparé ko vraiment ñëw tey ci open press bi gis ni ay mbokkam yëpp génn nañ parce que bu ñu nee nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax tey Bismi wane na ni tey ay mbokkam ñëpp ñi ngi ci ginnaawam wax ji nag du bëri ndax bés bi dimanche la muy bëreeg champion bu mag ku ñëpp xam Sénégal nangul ko ko vraiment ñu xam ko xam jabaram wax dëgg yàlla ñu nekk ay nit yu baax bis bi nag nekk xale nekk ci yoon ñu waajal ko di ko ñaanal yàlla parce que lépp lu ñuy waajal mbër pour mu jëm ci combat waajal nañ ko ko lépp lu ñuy euh, ni ñu koy wax ni ñuy sasee mbër lépp li nga xam ne ñu ngi koy ëmbee mbër di ko waajal pour mu dem ci bës parce que bés xare la waajal nañ ko ko li ci des nag wax ji jarul bëri yàlla rek moo yor ndam ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom mu may bébé Bismi ndam bu rëy boo amul benn werante mu ñëw fekk ci ay magam vraiment partagé ak ñun victoire bi. wax nga ne ki muy dajal champion la. Mhm. gaynde la ku mën a bëri la. xam nga ko ba xam entourage am. Mhm. loolu moom xam nga ko bu baax a baax a baax. Mhm. mais est-ce que tey ki nga xam ne tey mooy seen mbër bébé Bismi. am na lu mu manqué woon. man xam naa yow xam nga keneen xam na. keneen xam na est-ce que ko xel dal na léegi. nekkul lu ñuy wax lu ñuy wane la loolu bis mi moo koy wane ci géew ba li ñu liggéey liggéey nañ ko mi ngi ci moom ci bés ba nag parce que loolu mu manqué yéen da ngeen daa toog di ko gis du lu ñuy wax kon lu ñuy gis la kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko wér bàyyi ko xelam bàyyi ko xalaatam bàyyi ko wéram ba ci juru làmb ja la nga bëgg a gis yow mu wan la ko ñun lañu bëgg a gis ñun entraîneur lañ def ci moom di ko xaar ci bés ba bëgg ko gis yàlla may ko kàttan at tal ba pare teg ko loxo ba mu wan Sénégal ñëpp ni champion bu mag dinañ ko bàyyi xel ñaanal ko yàlla ba roi des arènes. non boo yoree xale mu mat la mu war a mat mën la mu war a mën doo ko moytuloo da nga koy préparer moom li muy indi ñun dañoo am projet amuñu lu ñuy moytu buñ ñëwee suñu projet la ñuy suivre. da ngeen koy moytu. non déggoo ma amul lu ñuy moytu. loolu yow yaa ko wax en tant que journaliste. yow yaa ko wax loolu yow yaa ko wax. mais xam nga kañ laa lay tontu bu làmb ja jeexee ba nga dab ma di ma laaj ñu ngeen préparé mais lu leer laa lay wax bis mi du moytuloowuñu ko dara parce que ñun yoruñu mbër mu ñuy moytuloo parce que adversaire am yorul loo xam ne ñun war nañ ko ah, mën a moytu non déggoo ma de ci bés boobaa hmm. xëy na tey mbër mee fi taxaw yow yaa fi taxaw avocat yu jaabal di ko waxal mais mbër mi tey bëggoon naa mu taxaw di wax yow li ngay wax mais lu leer laa lay wax lu leer laa lay wax bis na à cent pour cent di ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla àggale ko ci bés bi at jàmm at sagoom di ko ñaan yàlla nag yàlla rek moo yor ndama ñun pare nañu li ñuy wax l'homme propose Dieu dispose ñun pare nañu on propose et yàlla na yàlla disposé jërëjëf